non état d'esprit bi ma am c'est très simple parce que moi je suis un sportif avant tout mais nag foog ñu gëm seen bopp parce que war ñu mën a gëm ne les français ñoo moom football wala les européens ñoo moom football football onze la onze il faut que ñu gëm seen bopp war ne ñoom ay joueurs lañ euh, je me dis comme Samuel Eto'o ni mu gëmee woon boppam man mooy sama référence ci football à part sàmba Samba Diéna Sénégal war naa mën a sax jël coupe du monde ce ne serait-ce que participation bi rek sax quelque chose la jël coupe bi moom yaakaaruma ko parce que ñoom sax duñu ci bàyyi xam nga loolu moom. ñan ñooñu ci dul bàyyi. tubaab bi duñu ci bàyyi moom parce que Sénégal jël coupe arrangé wu leen loolu moom duñu ci bàyyi mais am nañ yaakaar xaw a sori tuuti wala ñu yegg fi ñu yeggoon 2002. non coupe du monde tollaguñ ci niveau bu ñu koy jëlee am naa yaakaar ne mën nañ sori dem quart de finale demi finale mais mënaguñ jël coupe du il ne faut pas que ñu ne quart de finale la ñuy non objectif bi mooy ñu jël coupe du monde foofu tamit dina si waxaale Aliou Cissé que ne ah, Henri waroon na mën a am sans sélection loolu moom je blâme quoi. bon c'est pas du ma wax jël mais damay wax juste une euh, participation boo xam ne nii vraiment bu convaincante la comprendre nga. parce que xam nga lu toll ni coupe du monde compétition internationale ak équipe yu mag yi fay nekk vraiment baax na tamit. ñu modérer suñu ambition quoi. bon fort équipe bi actuellement mooy collectif bi nga xam ne moom la ñu am d' après match amical yi nga xam ne moom lañ jot a joué donc gis nañ entraîneur bi la façon bi muy coacher équipe bi donc moom mi ngi miser ci collectif équipe bi malgré que am nañ ay point faibles yoo xam ne individualité bi des na ku mën a créer jeu bi passe ñu marqué ba léegi des na mais am nañ benn collectif boo xam ne mooy suñu fort actuellement donc bloc ah, euh, défense bi actuellement c'est solide li ñu manqué mooy réalisation bi daal. suñ ko naroon jël sax dinañu créer ay problème ba duñ ko jël loolu moom xam nga ko sax parce que loolu arrangé wu leen africain yi di sori di am ay équipe yu bari wu leen xam nga ñoom loolu moom lu ñu mën a def ba empêché ko dinañ mais franchement nañ nekk ci ginnaaw ñun ñëpp doon benn bloc di leen tàllal loxo di leen ñaanal. dama leen di si ñaax nañ góor fubal nañ def yëfi góor bañ a def yëfi jigéen fubal 11 a def du kenn ak nit du Sadio Mané kese. ñoom 11 la Sadio Mané boo ko tegalee bal moom kese du fu bal boo tegee balaa ngay xam loolu nga tegal ko bal door mu daw topp si du ko jàpp bal moo gën a gaaw nit il faut ñu teg bal bi ñu fu bal benn benn am fulla am fayda indil ñu coupe bi il est temps. moo tax dañuy ñaan vraiment équipe bi def ndam def ndam nag mooy bon bu ñu góorgóorloo ba na premier tour baax na vraiment d'après match yi ñu jot a seetaan. ci équipe yu mag yeeg équipe yu ndaw gis nga tendance bi moo commencé versé ñi ñu tuddoon ni ñëpp ay favori lañ xaaj bi yëpp ñii dañ leen dóor ñii dañu match nul Portugal Espagne Argentine Brésil comprendre nga. donc malgré que pays africain yi jot a football yëpp dañoo jël défaite mais ñun am nañ yaakaar suñu équipe te j'y crois que ne mën nañ def la différence contre euh, Pologne. Euh, gëm Sénégal ma tax ma jël maay bi sol ko te gëm naa dañuy andi coupe du monde bi fii ndax gëm gi ma gëm loolu amoon 2002 day raw. te li tax ñu dem ba li ñu xëccoo réew yëpp dem coupe du monde Sénégal dem foofu loolu dafa rëy ki Sénégal turu Sénégal ci coupe du monde rek lu rëy rëy la kon li may ñaan ci yàlla rek yàlla ñoo ne coupe du monde bi